salaamaaleykum mbokku site internet Adouna Buzz TV li gën a fësal ci boppam xibaare yi benn Benno Bokk Yaakaar bi di wuyoo ci Dembourou Sow nag la ñu daal di sàcc ak sàcc gu métti guddik aljuma entre trois h ak 7h du matin ginnaaw bi mu gaaree ab otom fi nga xamante ne moom mooy ca buntu këram nga faree ca westu Foire nag ci loolu nag ay defkati ñaawteef ñoo daal di ñëw rek tojati vitre ba dugg ci biir yóbbaale saak bi nga xamante ne dafa amoon parfum waaye yàqate oto ba jamono ji nag ki nga xamante ne moom mooy député bii di Dembourou Sow ma nga déposé ab plainte contre ex fële ca dikk